une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer jotaay bi jotaayu euh, vulgarisation la dañuy partager li nga xam mooy PDA ñu waxtaan ci nag waxtaan ci bu baax parce que lépp loo xam mooy développement assainissement fii ci Touba mën nañ d'abord commencer ci li nga xam def nañ ko ñu planification bi d'abord ñu xool ci li ñu planifié yëpp lan lañ ci def ak lan la ñuy continuer def fi ñu toll nii ak li des te loolu pour ñu mën ci réussir bu baax il faut que ñu lëkkaloo lëkkaloo li nga xam ni mooy moo doole bi ci loolu lay remercier vraiment ouverture organisation Touba ci kanam vraiment nekk ñoo xam ni am nañu engagement ci li nga xam ni ci lañ nekk te ñu am esprit d'ouverture boo xam ne aussi pour jël engagement liggéey ak ñun euh, Hizbut aussi ñu ngi leen di nuyu bu baax gis na leen fii ak képp koo xam nekk na acteur nekk na partenaire de la l'assainissement au niveau du Touba donc ñu ngi lay nuyu bu baax a baax donc li nga xam ni loolu la ñuy partagé tey booy PDA bi comme ni mu ko waxee sànq lépp loo xam ne nañ ko li nga xam ni euh, des na ñu xool naka lañ ko waxtaanee ah benn fan mooy ñu réaliser ay ouvrage mais beneen fànn bi mooy ñu xool naka la ñuy exploiter naka lañuy ñuy gérer ouvrage surtout ci gestion ouvrage bi nekk na loo xam ni yu am jafe-jafe la parce que ONAS rek du mën a assurer vraiment li nga xam ne mooy exploitation ouvrage yi ñu war a def te dañ ci ñëw sànq ñu xool ñu wax leen investissement yi ci def état bi def ak li nga xam ne Touba ci kanam aussi dañu présenté tout à ñu xool lu ñu ci def ak li ñuy war a def ci kanam parce que lépp mënu sottandoo dañuy commencer rek mais au fur et à mesure parce ay phase la donc ci phase yooyu la ñuy mën a xam réellement fan la ñu jëm ak kañ lañu ci àgg euh, donc nekk na loo xam ni suñu paree ci loolu partager échanger ñu aussi euh, wane rek suñu collaboration ak mairie mairie bu Touba ñoom aussi am ouverture euh, am engagement vraiment liggéey ak ñun donc loolu ñu rafetlu ko baax a baax donc ci foofu aussi dañu présenter benn projet de protocole boo xam ni Euh, après xam naan dañ ci euh, xool naka lañ koy signé. naga ni si daaw la woon. ci mois bii di ñëw mois de mai. gouverneur ñëw fii toog préfet sous préfet ak assainissement donc ñëw ak mboolem kilifa yi teew ñu ngi fi woon. lii ko sëñ Ousmane wax rek loolu laa bëggoon. ma woo invité Touba ci kanam ismu tarixia ak mbooleem acteurs yi nekk ci dëkk bi di yëngu ak bonne volonté yi ak daayira yi. nagan si daaw ci mois de mai. ne leen dama bëgg ñu réfléchir ci assenisement Touba parce que problème la te ke commune rek mënu ko état ngi ciy def li man kenn ñun ñëpp nañu bokk toog xalaat nan lañ ciy def defe naa daje bu mag la woon yaa gouverneur mi moo ñëwoon présider ko comme ñii mu toogee tey ñu di ci xalaat bi ñu fi jógee Touba ca kanam dem xalaat indi seen xalaat boobu ñu xalaat tey ba tàmbali ba woote seen appel bi ba di ci exécuter nii bi ma koy def lu mel nii laa bëggoon commune munul moom rek munul assainissement munu ci lu munu ci lu bari état mi ngi ciy def li man munul lépp mais euh, acteurs yi nga xam ne ay partenaires lañ comme Touba ci kanam ak ñeneen ñi ngi ci kenn ko nekk dafa am loo man mais ñun ñëpp bu ñu dajee def nii am def benn collaboration kenn ko ne borom xam ñu am xam-xam génne ko ñu am baat yëkkati ko ñu am dara moyen def ci yaakaar naa ne buñ ko defee bu ñu àndee dana doon dara loolu rek laa laa laa bëggoon loolu moo taxoon ma doon woote collaboration bi ci assainissement bi mais euh, bi moo ko defee nii directeur aussi jël xalaat bu mel nii ñëw def acte bi maanaam di ko dox doxale ko nii mu ko doxale yaakaar naa ne bu ñu ñëpp bu ñu defee wàll yëpp bu ñu ko defee noonu dana am njariñ donc loolu ci même gouverneur ci plan urbanisme bi am obligatoire nii rek lañ ko mën a def hmm. toog waxtaan ci ak urbanisme nga nga diriger ko ñu bokk toog waxtaan nañ ci ak waxtaan naa ci ak sous ñu commune bi seet lim man ci ci moyen mu génne ko def ko ci ñu def un plan de urbanisme boo xam ne nii am na ay collaborateurs yoo xam ne nii ay boroomi xam-xam lañ comme ismu yi comme ñeneen àgg nañ ci sax ne ma bu ngeen ko defee ñun danañ indi suñuy ma suñuy logiciel nouvelle technologie ay matériel dorom yoo xam ne danañu mën a ida def dëkk bi yépp génne ko def euh, ngeen mën a def euh, euh, résu maanaam identifier lépp li nga xam ne war nañ ko def nga xam ne urbanisme laaj na ko ñu ànd ko ak service urbanisme régional et départemental ba man leen a génneel benn plan urbanisme loolu semaine passée rek ñu ngi ci di waxtaan yaakaar naa ne loolu suñu ko defee ñu ci am lu solo ñu ngi ànd joxante loxo te benn problème bu taxaw suñu kanam bu ñu melee noonu rek dara du dara duñu dara duñu jaaxal wax nañ fi sax lu jëm aussi si màggal gi parce que occasion la daaw euh, waxoon nañu ne bu kenn def benn travaux une semaine avant màggal gi am na nag ay travaux yu fi jot a jaar xëj na ña ko def sax yàq taxu leen taxu leen a woon a jóg waaye ba tey am na lu mu indi dogal bi ñu fi jël mooy jëluñu ko fi sax xëj na comité bi jël nag ko à sëñ Ousmane ci ndigalal ak xalif général bi ak euh, porte parole bi un mois bu desee màggal gi bu ngeen def benn travaux waaye damay jox ndigal sous préfet na jël arrêté loolu dañ koy formaliser jël arrêté date sàngam ba date sàngam arrêté boobu da koy déggoo parce que déjà comité boobu rek euh, comité d'organisation bi sëñ Ousmane si coordonnateur bi bu ko defee dañuy jël arrêté formaliser loolu ne bés dat sàngam ba def sàngam bu fekkee def bañ travaux loolu dañ ci gunge volonté autorité religieuse bi te loolu sëñ Ousmane ko dañ ko ciy gunge administration noonu lay àndee ak euh, kilifa diine yi dañuy waxtaan bu ñu waxtaanee bu laajee dogal ñun jël ab dogal bu ko defee nag daal di ko siiwal war a mën a jël communiqué war ko yóbbu ci rajo yi ñu daal di ko siiwal bu ko defee ñu xam ne lii kat euh, autorité religieuse beeg ak administration bi ñoo ànd euh, dol dogal boobu loolu dañ leen ci gën a dimbali parce que àddina aussi administration loolu lay jëriñ bu ñu waxtaanee ba ñu xam ne lii lañu war a def ñun ñoo koy dëggal ba pare nag jël suñu ay ndaw ñuy seetlu loolu bu ñu ko jëlee ah dañuy jël police ak gendarmerie rek service d'hygiène parce que ndaw yooyu ay ndawal buur lañu ñoo ñuy saytul loolu parce que dañ ciy defe ni pour l'exécution dañu wax ne le commissaire les sapeurs-pompiers sont chargés de l'exécution du présent arrêté xam nga kooku liggéeyu autorité administrative la donc bu ñu ko déggoo ci noonu rek ñu dañuy xaatim ba pare saytul ko suñu bopp mu am ay daan bu boobaa day am ay daan parce que ku ñu jël dañ lay alamaan parce que li ngay yàq àllu askan bi te yëg nga ne dañ koy dañ koy tere waaw yooyu nekk na lu nga xam ne réunion bi jur na xalaat yooyu mu mel ni kon ñun bu ñu taxawee ci turu comité d' organisation représentatif sunu président Serigne Bass mu Serigne Abdou dañuy wax ci turu yoonu murid wépp ku dëkk Touba ak ku fi dëkkul parce que ku dëkkul Touba ci murid yaa ngi bàyyi xel dëkk bi rawatina du mu màggal jotee kon ñu ngi leen di félicité bu baax euh, di ñaan yàlla projet bi ngeen am ci ndam parce que bari na ay tabu yoo xam ne bu ñu waxtaanee rek mu jeex. ñàkk a wax la ñuy entretenir ay mythe yu dul jeex ci dëkk bi fekk dëkk bi ñi fi ne ñoo gën a bëgg dëkk bi ñi fi ñëw di fi liggéey li waral ci bu ñu ko defee ba présenté ko lépp ñu man ko entretenir man ko xam ne suñu yëf la <coughs> mu bañ doon investissement moo xam ne ay xaalisu askan yu bari moo ci dem warul dund téeméeri at balaa dund ñaar fukki at commencé am problème mu jural na yeneen i problème yoo xam ci environnement bi lay lay lay lay lay lay lay lay lay des ñu di ko dund defe naa loolu teel a sensibiliser population yi ba ñu xam li ñu yor lan la ak nan lañu koy entretenir def naa lu ci am solo ci jataay yu mel nii rek moo mën a tax loolu loolu am donc képp koo xam ne danga fi ñëw nag jàpp ne war nga mën a dem ak sa bopp loolu yaa ngi indil waa Tuubaa xal xasan ngaa euh, échec ci sa mission ay problème nga ñuy bàyyeel ay problème nga ñuy créer waaye doo dem donc liggéey bi dafa laaj service bu fi ne xam ne moom moroomam ñoo bokk mission mission bi mooy askanu Touba maanaam épanouissement bi ñu yàllool Touba mën a ak jamono kon nit ñee leen tax a jóg nañ wax ak nit ñi nañ jëflante ak nit ñi mu mel ne loolu day loo xam ne lu mënut a ñàkk la fi mu ne Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer